ki koy màggal di setu ka muy màggal muy sayyiduna Muhammad ki koy taxawal ànd kook mbokk jullit yépp di sëtam bu tedd ba Serif Ibrahima Haydara Atijaani ah ñu bëgg nekk waajal ga mu am solo lool mooy ñu bàyyi xel ni gàmmu gi du gàmmu kese kese kese bu dul woon ak li dëpp nii am lu ma ca wax tuuti ñu bàyyi xel ni gàmmu gi du gàmmu kese kese kese kese kese wax jooju nag fa laa ko yemale ku ko seetaan bëgg a firi nag firil mais gàmmu gi du gàmmu kese kese kese kese ñu bàyyi ko xel bu baax a baax waajal ko ci jàppalante ci côté yépp fa tabaarakallaahu képp koo xamante ne war ngaa mën a rasewu ci ginnaaw mbay jum nga jàppale ko ci li muy def nga bañ a toog ba ca bis ba nekk ñëw di yàkkali mbay jum jot a defar su ko defee nga raase wu ci ginnaawam comme sangaa ko jiital kilifaa ko jiital moo jiitu lépp ba law ñu jàppale ko ci li muy def yépp yiñ koy jàppalee nag moom mbay jum du dara lu dul ca gàmmu ga rek lay defar waaye defarul suñu poos defarul leneen mais gàmmu gi la ñuy defar mais gàmmu ga ku ca àgg nag ñaan ca sa poos sa poos mën caa amee loola nag pour nga am ko faaw nga jàppale ko ba gàmmu ga jekk ci côté boobu ña nga xamante ñoo rasewu ci sëriñ Atumaan Jóol kasalika noonu ñu fexe ba jàppale ko ñun ñépp nekk ñu bennoo jéem a def loo xamante ni mooy taxawal gàmm gi mu doon sunu gàmm ñun ñépp loolu rek mooy wax ji ci gën a am solo fa tabaarakallaahu yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm jàmm sànga nekk taxawal ko muy Cherif Ibrahima dara waxoon naa ko bee paase Seydina Omar mii jël ma ma wax ñaari béyit ya nga xamante ni alaaji Abdu wax na ko moom alxaaji abdul aziz yuhibbuna man saqat basiratuhu mu dem ba ca biir mu naan lillaahi qawmun iza xallu bi manzilatin xalla nada wa alat fil jawwi anwaaru tastaaxuhum kullu ardin yanziluuna biha ka annahum li biqaail ardi ansaaru alaajab doo ko wax yuhibbuna kullu man saqat basiratuhu alaajab du nee na képp ku sant si ku sa gis-gis feebarul boo jàkkaarook moom rek sopp ko bu dee sa gis-gis feebarul na am wa yukrahuna al umya wal uur mu ne ko bëtam am feebar nekk mooy feebaru mbañeel bu nekkee ci xol dafay feeñ ci bët booy jàkkaarloo nit ki rek muy feeñ te doo ko tey boo bañee nit ci xol la ne mais bët yi sax da koy wane ak gémmiñ gi ni muy waxee ak na muy dégloo nit ka da koy xam mu taala jab du ne ki nga xamante ni nekk xaw naa safaanoo ci ñun waxul bañ sax xaw naa safaanoo ci ñun kooku mu ne ma yëgal leen ni rek man Dabakh Malick li ma leen di wax ngeen déglu ko lillaahi qawmun yàlla am na ay nit ñoo xamante ni iza xallu bi manzilatin bu ñu wàccee ci tànt wala bu ñu wàccee ci bërëb xalla na daa xéewalu yàlla wàcc ca bërëb ba ànd ak ñoom tàntu sang bii mu ñuy wax sërif Ibrahima dara ci tànt yooyu la bokk kilifa ya fay teew yépp du ñàkk am benn kilifa bu fa yàlla rus lu waay ñaan yàlla nangu du fa ñàkk am xanaa tànt bu rëy bii yépp yàlla rusul kenn ci biir déedéet du mën a ñàkk dana am ku yàlla rus ca biir tànt ba xoolee ko tànt ba kooka dana tax lu fa waay ñaan ca biir tànt ba yàlla nangu moo waral alaaji abdu ne xaw qawmun isa xallu bi manzilatin xàlla nadaa bu ñu wàccee ci kër wala bu ñu wàccee ci dëkk wala bu ñu wàccee ci tànt wala bu ñu wàccee ci bërëb wala bu ñu wàccee ci zawiye xàllan na daa xéewalu yàlla wàcc rek ànd ak ñoom ca bërëb ba mun a tax na ba ñooña tastaaxuxum kullu ardin yanziluuna biha suuf su bëri dañuy xëccoo pour bëgg ñooñu wàcc ci ñoom ay kilifa lañu ay walluyu lañu ñu am yàlla lañu suuf si dañuy xëccoo pour ñu wàcc ci ñoom Serif Ibrahima dara ci ñooñu la bokk tamoo tànt yanziluuna biha ka annahum li biqaail ardi ansaaru mu ne ndax ñoom goxu suuf yépp fu ñu fa wàcc rek dimbali ña fa nekk dimbali ña fa nekk xool nit ba ci yàgg yëg ni kii texewul ci bàmmeel nga def ay ñaan ba mu texe xool nit ba ci yàgg nga yëg ni nangama ko baare nga xool ko rekk ci xool ci bët rekk nga fixé ko ba ci yàgg rek loola deñ dafay am ci wàllu yu ñoo xamante ne buñ lay defar duñ la jox turu yàlla duñ la jox leneen duñ la jox looy wér bi te daañ la defar ba nga àgg ci yàlla kooku ne ku ko gëm moo koy am ci kilifa mais ku ko gëmul mënu koo am ci kilifa am na kilifa yoo xamante ni luñ la xañ ci turu yàlla ñoo ngi la koy defar ci xool giñ lay xool duñ la defaree mukk ci kurus ngay toog ak ñoom óor bu ne ñu di la xool ngay wax ak ñoom ñuy déglu ñu lay delloo kàddu ñoo ngi lay defaraale ah dégg ngeen fi xanaa sànga fi wax wax fi benn bis mu ne bu may wax jëm ci nit benn yoon laa ciy waxee te diggante bi ma ciy waxee laay defee la may defaale loolu xanaa dégg ngeen ko ni ma ko déggee mhm. boo ko defee lu ko neexul ci diggante bi muy waxee ci yow diggante boobu lay dugalaale li lay duma kooku talut kurus moo tax xàmmee nitu yàlla yi di leen bàyyi xel am na solo waxuma nitu yàlla mais nit koo gis da nga ko war a ormaal su ko defee tànt boobu ci yooyu la bokk mu ne nag jaww ji ci guddi gàmmu gi dafay woddoo ay leer bu bis ba jotee maa leen ko wax yéen ñépp ku dem ba guddi gi xaw a xaaj génnal ci biti tànt bi di xool asamaan si bul naa féq nag boo gisul li ma lay wax jarul nga naan moo ngi nii mais danga koy gis waaw daa gis ni waaw film bi moo tax daa gis ni jaww ji ak leer ji mu àndal ci guddi googa daa gis ni am na lu ñu tàntal sa sayyiduna Muhammad loolu moom ku àgg ba ër booba na nga génn rek xoolantu ko nii rek ci jaww ji te am na heure boo xamante ni spécial ci gàmmu ji pour ñaan la man nag xawuma ko bu ma ko xamoon baaxee ko ñépp mais pour ñaan la amut loo cay ñaan yàlla mu delloo la mukk parce que guddi sax guddi bu dut gàmbo gi sax guddi yépp óoru ñaanukaay la mais dafa am óor yoo xamante ni ñoo gën a dal dafa am óor yu gën a dal ci ñaan ah, boo àggee ci yenn téere yi daañ la jàngal óor yooya ku ci mel ni abu maasaril fulkiyil kabir waaw moom day jàngale yooyu yépp ba ci at buy teru sax dana la wax lii xew ci at bi yépp waaye noppi lay bëgg waaw fa tabaarakallaahu googu lañu jëm ñun ñépp nag ñu ànd bokk ko ak sunu sang bu tedd ba sërif Ibrahima Aydara Atijaani moom ah yal nañu yàlla defal jàmm yal nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla dimbali